yaa maalikal mulki yaa man jàll al xawaadir irham jamii al waraa yaa haadiyal radaa yaa maalikal mulki yaa man jàll al xawaadir irham jamii al waraa bismillaahi rahmaani rahiim alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala sayidina wa maulana muhammadin il amin wa ala ali beytihi al kiram at tayyibin at tahirin zawi ridwani wa tamkin mbokki jullit yi mbokki taalibe yi di ngi leen di nuyu di leen ziyaar di jiital ci nuyoo yi ak siyaar yi al xalifa al am li taif al muridiya as sayx mamadil muntaxa al basir di ñaan yàlla borom bi subhanahu wa taala may ko fan bu gudd wa ànd ak wér-gu-yaram ba naal yi nga xam ne moom la naal ci lislaam ak yoonu murit mu yeggale yëpp dañu ànd ko ak moom ñu dellusiwaat ci émission bi nga xam ne dañ koo jëmale woon ci leeral lenn ci njàngaleem sëriñ bi mu jëm ci weeru koor muy ay xikam ak ay dénkaane ak yu aju ci yooy ñu koy ànd ak yéen nag ci seen site internet bi di Touba Vision xam naa tey dañu ñëw def ay taxaw seetlu yu gàtt ci xasida Sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu goo xam ne mi ngi ko liggéeyoon ci weeru màgg wi nga xam ne ci lañ nekk muy xasidag ak faada alladina xaafasu ala siyaam doon xasida goo xam ne sëriñ bi leeral na ci lu bëree bëri ci laaju ci koor xasida gi nag buñ koy leeral danañ leeral dëgg-dëgg lu aju ci jëmmi xasida gi ci boppam kañ la ko sëriñ bi taalif ak fan la ko taalifee ak ci ban baxar la ko sëriñ bi wayee ak yenn maalumaat yoo xamante ni dana laal xasida gi su ko defee ñu jàngat ko jàngat bu gàtt xasida gi sëriñ bi mi ngi ko taalif ci atum 1331 muy als alsas mooy 1331 di war a tolloog 1900 1912 mooy bi muy doog a dem njaareem ci adu njëkk yi ci la ko sëriñ bi way loolu nag fi ñu koy tegtaloo mooy li nga xam ne sëriñ bi wax na ko wane na xasida gi da koo tënkee fii sahri ramadana ama alsasin te alsasin mooy la bàyyi ko ci yeen jolof ñaw foofee nga xam ne moo di njaareem at moomu tamit sëriñ bi da koy faral di lu baree bari ci am mbindam jazabanil akramu ama alsasin wa qaadali karamuhu fi masasi layyana lil mawlidu ama lasasi ba man taawanu fi alsasi kon sëriñ bi jaarim la ko la ko taalifee lan mooy jubluwaay bi mooy sëriñ bi da ci leeral nga ne li nga xam ne mu nekk ci jëmmi weeru koor ci boppam ak digg yi nga xam ne moom la suñu boroom digg ñi nga xam ne ñooy woor weer wii di weeru koor ak ñi xam ne ñooy taxawu guddi yi ci ay naafila ak yu ni mel lu ci mel ne mucc ci gàcceeg àdduna ak alaxira ak mucc ci sawara ak am ngërëmal yàlla borom bi subhanahu wa taala muy toll nag ci fukki bayit ak juróom-ñaar kon taxul mu guddee noonu sëriñ bi mi ngi ko wayee ci bahru rajas bi nga xam ne mi ngi tëggoo ci mustafailun mustafailun mustafailun mustafailun mustafailun mustafailun muy bahru boo xam ne maneef naa wax ne li ëpp ci xasaay di nga xam ne sëriñ bi da ko def mu jëm ci yi muy jàngale lu jëm ci wàllu xam-xam yépp ci daaj bi la ko daajee xaside yu baree bari tamit yoo xam ne da cee tàgg yonte bi alayhi salaatu salaam wala yi nga xam ne da ko def ci weeru koor yu ci baree bari ci daaj bi la ko sëriñ bi tënkee mu tàmbalee ko tàmbalimaay bu am solo boo xam ne moom sëriñ bi ci boppam wax ne ne bismillahi rrahmani rrahim basara allahu tabaraka wa taala duwaara naafimi hadihi alqasida wa gayrahum min almuminina walmuminaati maan fi sahri ramadana ama alsin bim tuddee turu boromam moom sëñ Tuubaa radiallahu taala anhu mu ne yàlla mu ne yàlla borom bi subhaanahu wa taala bégal na ñi nga xam ne ñooy siyaare si ki way xaside gi ak ñeneen ñu dul ñoom bégal na leen ci jëmmi xaside gi ci boppam moo xam muy ñi gëm ay góor ak ñi gëm te di ay jigéen ñoom ñëpp suñu borom bégal na leen ci weeru koor wi nga xam ne mooy atum alsas di 1331 di tolloog 1912 mu wax ci xasida gi ne faada alladina xaafasu ala siyaam sahrin bihi ugliqa baabun lil iyaam mu ne ñi nga xam ne dañoo sàmmoonte ak woor weeru koor texe ñeel na leen kon danañ am ak texe ñu koy woor mu ne weer la woo xam ne suñu borom subhanahu wa taala da ciy tëj mbooleem bunti sawara yépp loolu nag demel da ci junj rek lenn ci ay ahadis yoo xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax na ko yonent bi nee woon na saa bu weeru koor ñëwee suñu borom subhanahu wa taala day tëj mbooleem bunti sawara yépp waaye day tijji mboolem bunti àjjana yépp jéng saytaane yépp kon day mel ne loolu la sëriñ bi jubloo junju ci wax jooju loolu waxoon na lu mel noonu ci biir masaalikul jinaan li anna fil jannata li anna fil jannata fil jannati baaban laa yaqib fihi siwa ahli siyaami faxtasib mu ne àjjana am na bunt boo xamante ni ñu wooroon rek ñoo fay dugg ëllëg yamal xiyaam muy babu rayyaan nga xam ne ba ëllëg yamal xiyaam suñ borom daf koy jagleel ñi daan woor ci àdduna mu daal di ci teg ne yaraw na afdala futurin fil qubuur wa fil qiyaamati min al kabir ñoom ñi nga xam ne ñoo doon woor ci àdduna danañ gis ngeen ji dog buñ demee seen biir seen biir yi bàmmeel waaye ëllëg yamal xiyaamit danañ fa gis xéewal gu yaatoo yaatu goo xam ne mi ngi bàyyi ko ci yàlla mi aji woomal yàlla mi aji màgg sahida xaalixul wara li saaimin fi ramadana bi qaaimin mu yàlla borom bi subhaanahu wa taala mi nga xam ne moo bind mboolem mbindeef yépp seedeel na ñi nga xam ne ñooy woor weeru koor tey taxawu guddi ci ay nawaafil ngërëmam mooy suñu borom subhaanahu wa taala dañ leen defal ngërëmam te loolu yonent bi alayhi salaatu salaam na ci hadis man qaama ramadaana imaanan waxtisaaban xufira lahu ma taqaddama min zanbi képp koo xamante ni woor nga weeru koor taxawu guddi yi ànd ak gëm yàlla borom bi subhaanahu wa taala ak sàkku tiyaaba suñ boroom dañ la jéggal sa bàkkaar yi jiituwoon mune mu ne xibaatuhum al ilahi waafira naa lul mu naa fi darajaatil axira ñoom ñoo ñi nga xam ne ñoo doon woor seeni may fa yàlla borom bi subhaanahu wa taala may yu bëree bëri la danañ am ay mébét loolee ñu doon mébét danañ am tamit daraja muy ay martaba yu kawe kawe ëllëg yamal xiyaam rudda li gayrihim adabu naari bi gayri dirhamin wala dinaari ne suñ borom dana jëmale ci ñeneen ñu dul ñoom mbugalum sawara ci lu dul ñu koy jëndee dirham wala ñu koy jëndee dinaar rafaahum bi ramadaana rafiu nafaahum bi salawaatin nafiu mu yàlla mi nga xam ne mooy aji yëkkati yëkkati na leen ñoom ñi nga xam ne ñooy woor ci weeru koor waaye seen julli yi ñuy julli ci weeru koor dana leen jariñ maddalahum mu nan nufuusil baaqi ful aradina sabi wattibaq yàlla borom subhanahu wa la dana leen dëpp dana leen may mébét yooyu nga xam ne moom lañ doon mébét ci seen wàllum bakkan moom li nga xam ne mooy borom suuf yépp di borom asamaan yépp diyaafatul baaqi la dal jinaani tamxu xanaa sawmi bimtinaani ganele gi nga xam ne moom la suñu borom subhaanahu wa taala aji des di ganele ñoo ñooñu nga xam ne ñoo doon woor fa àjjana dana leen faral bépp coono boo xamante ni mas nañ koo jànkoonteel ci koor ne ajru alladi ma indahu la yanfadu ajrun kabirun ma ataraahu nafadu fay suñu borom bi nga xam ne du jeex mukk fay gu rëy goo xamante ni ak jeex du ko gaar nafu siyaami sahri fi daarayni yakfiikumul aarayni wan naarayni weeru koor dana jëriñ ñi na ñooy woor ci ñaari kër yi muy àdduna ak alaaxira dana leen fegalit ñaari gàcce muy gàcce ak àdduna ak gàcce ak alaaxira dana leen fegalit sawaras àdduna ak sawaras alaaxira abattumullah alkarima al bi xayri dahrin qad yaquudul karama mu ne jaamu ngeen yàlla mi nga mooy aji tedd tey gën a tedd ci ngeen ji weer moom suñu borom dañ leen wammatal li nga xam ne moo di teraanga ilaa siwaakum tantaxi niiraanu yowmal qiyaamati kadal xosraanu sawara dana jëm ci ñeneen ñu dul yéen ñi nga xam ne yéen doon yéen a doon woor fii ci àdduna yowmal xiyaam tamit da ngeen mucc ci pert perte perte nga ak yu ni mel mallaktumu nufuusa fi nahaari yanxu li gayrikum sa wuntihaari moomoon ngeen seeni bakkan ci bëccëg yi kon ak gëdd dana jëm ci ñeneen ñu dul yéen mu daldi koy tëjee nag bayit nga xam ne wax na ci wax yu am solo ne abwaabu jannati naimi fottixat li saaimina wal jamiun fataxat mbooleem ajjanay jannatu naim suñ borom subhanahu wa taala tijjil na ko ñeel ñiy woor te mbooleem bunt yépp tijjeeku na lakum la dal ya wal liqaayi yaa qawmu forxataani bertiqaayi yéen ñi xam ne yéen ay aji woor da ngeen am ñaari mbégte mbégte menn mi mooy su ngeen demee baydog dog comme nit bu wooree bay dog mbégte moom muy am mbégte meneen mi ci des mooy ëllëg yawal xiyaam buñ dajeek suñu borom subhanahu wa taala sa taalamuuna anna rabbakum karim wa an indahu ujuran la tarim da ngeen xam ne seen borom ku tedd la waaye da ngeen xam ne seen borom bëri na ay yool yoo xam ne du dog mukk sakartumullah ala sahri siyaam satadxuluuna jannatan duna iyaam sant ngeen yàlla borom bi subhaanahu wa taala ci weeru koor da ngeen dugg àjjana ci lu amut benn sikk-sikk wala bu amul benn defe kon xasidale la goo xam ne gàtt na waaye day mel ne sëriñ bi tudd na ci lenn ci ngëneel yi nga xam ne moo nekk ci koor waaye tamit ak digg yi nga xam ne moom la suñu boroom subhaanahu wa taala dig ñi nga xam ne ñooy woor kon buñ ko jàngate liñ ci war a déggatee rek mooy ñu gën a fonk koor gën koo bàyyi xel gën ko jox worma ji nga xam ne am na ko te jaamu ci yàlla lépp loo xamante ni suñ borom da ko tere ci biir weeru koor ñu koy wattaniku wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa يا من جل أن خاد ارحم جميع الراد